تَنْتَهُونَ son excellence ñu ngi lay ziar. ñu bu baax eh, gannaaw bu ñu sant yàlla teewaat bës bi. ñu am mbégte. Euh, fekkaat la fii. Mhm. Euh, ñëw bokk ci bés bu màgg bi nga xam ne ñu ngi koy màggal fii ci Washington DC. Mhm. ñu bëggoon rek bàyyi nga sant si quelques kàddu. Mhm. par rapport ak bés bi nga xam ne ñu ngi koy yeesalaat ren. alhamdulilah. salaatu salaam ala benn maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. Euh, daaw defoon nañu ko comme nii. ren fekk ñu fi kon nañ ñu koy sant suñu borom ni ma la waxoon daaw rek daf ma neex lool ma nekk ci bés bu mel nii fekk fii euh, di teewee bésu sëñ Mame Mor euh, bu njëkk bi mooy en tant que sénégalais euh, devoir la ci man ak ci bépp sénégalais sénégalaise fépp ñu fekk ñu fay sargal kilifa dina rawatina Mame Mor Diarra ñu teewee ko fekk ko. bi ci topp mooy sama diggante bi nga xam ak euh, Serigne euh, Mame Mor ak rôle bu muy joué ci biir Washington ci diina ji ak ci diggante moom ak Serigne ñi ngànk diina ji fii ci euh, Washington bi des nag boobu nga xam ne fu mu jaar mu ci bi doole mooy dama fi toogal borom réew ma Sénégal maa fi toogal de l'État président Macky donc mon devoir ci apporter son salut euh, à la à toute la communauté sénégalaise rawatina Serigne Mame mort ak euh, euh, frère mi fi nekk yeb Serigne si fi nekk euh muy sama devoir ma ñëw apporter le salut du chef de l'État le président Macky Sall muy euh, luma neex itam ndax xamna naa diggante bi ma am ak Touba euh, ma xam la luma ma fekk la luma ma dox la ci eh, gatal dal vraiment ben kontaan lol di di tew fi di tew président Macky Sall di tewal teewal communauté sénégalaise bi di tew nak ci wette mam mort eh, fekk fi imam El Hadji Sall xaritam soppeem ak imam yi fi nek yeb ak mbollem clip yi fi nek njëge Touba ak njëge bir États-Unis santa Mbacke santa Fall wa santa Bousso ñu ñep di suñu xarit di suñu ay euh ma leen di gërëm lool di ak ñom muy lu ma neex mi wane aussi toogaay bi fii Sénégal yi fi fii toogaay bu rafet saa mu gisee rek damay kontaan ñëw ci dëkk bi toog fii garder seen i valeur garder seen diine mu rafet lool di neex lool dal xel nag dalal xel ku mel ni man toog fi Sénégal xam nga ne ambassadeur bi ñu fal bu bees jëm Sénégal li mu bëggoon mooy fekk lu mel nii ba ñu préparé ko ba waaj ko waaye ginnaaw sa ko am ba demul waa dañ ma sax d'ailleurs dañu bëgg a yónnee ay ay délégation ci ba Day bi am ca New York incha allah le 28 kon nga gis na diggante Sénégal ak États-Unis rafet na lool euh, ma ci profité sàkku ñaan ci sëriñ si ñaan jàmm Sénégal ñaan ko jàmm fii waaye ñaan tamit jàmm ak yokk diggante Sénégal ak États-Unis incha allah jërëjëf euh, son excellence mu mel ni kaddu gi am na solo loolu waaye mu am loo xam ne dañ ko seetlu euh, sa jëw rafet na ñu gis sa diggante ak communauté bi ni mu rax taxee loolu euh, sénégalais yi sopp la loolu vraiment liggéey bi rafet na yow looy wax ci loolu qu'est-ce que waaw dama ci kontaan rek benn ci kontaan ndax dama fekk ñu mel ni yow dëgg-dëgg am ci yow estime personnelle ñu mel ni yow nag ñoo may guidé ñoo may wan aussi yoon bi dëggante ma fi nekk léegi ma léegi ñaar ak genn wàll. lima jot ci ay message mu joge senegal joge fi di wax sama toogaay ba sax ñi mëna ne woon sax commencé fiir nan yow dal Washington sax la nga fa <laughs> gën nga fa nek ko da nga la amoon ndax dañ na fo ne li ma woon Gambie dama na ko am fen mais vraiment dafa nek lu ma neex lool et puis dama gëna a ñaax ci liggéey bi nak ndax euh, lo def rek pour Sénégalais yi bëgg loo def pour japp leen lo def ne pour wone ne ñota nga nek fi doyul motax lepp luma euh, def rek damay bëgg def lu ko raw

ak lolu mo len ji ma ñu ñaax len ci ñu bëgg xam seen réew euh, bëgg seen réew fonk seen réew fonk seen valeur dafa am solo lool kon nak yow mi ben ambassadeur bi mo ci gëm nga sant la ko nak nak lolu nga wax ci sénégalais ak man dina ko continuer dina ko doubler dina ko tripler di ci ñaan nak sa ndimbal inshallah allah. incha kon son excellence ñu ngi lay gëreum di la sant ci cadeau yi di la remercier bu baax baax euh, di la ñaanal goudi jàmm goudi bu mag bi nga xamne moy goudi Mamour ña euh, nga passé ci jàmm inshallah jërëjëf kon uh, bu ko defee mbokk yi daañu jël sëñ Mamor mu sànni si ay kàddu rek bu ko defee après ñi jëlaat la uh, nga daal ñu wax ci bés bi uh, lan mooy programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur Benyamin Géeju ñu ngi lay nuyu te di la siyaar di nuyu sa nattago bi nga àndal di Souleymane Diop di nuyu waa Aar Africa TV. ak waa Allo Dakar euh, rajo di communauté Sénégal Sénégal bi nekk fii ci Washington DC ñu leen di tënk bi muy DC Maryland ak Virginia di rafetlu seen taxawaay ngeen fi taxaw bu baax a baax waaye di nuyu sama mbokk mu baax mii di sama doomu ndey di son excellence ambassadeur Babacar jaañ ñëw fi teewal fi sunum réew. représenté fi réewu Sénégal te di ko dox doxin wu rafet di bég ci ñëwam gi ak kàddoom yi mu fi yëkkati lépp luy boole la luy eh, jëmee euh, communauté bi gën a bennoo la euh, na waxoon naa ko euh, président bi mu fi ñëwee ma ne ko moom du tànqam lu dara lu ko waaye woo mu ñëw amul murit amul tijaan amul xaajar ba ci sax chrétien sénégalais rek waaw lépp ci loo ko war a mën kon loolu ñu ngi koy rafet bu baax di leen ko seereel waaye ci wàllu bis bi itam eh, bis bi moom bisu borom saam la eh, borom saam nag Mamour Diarra Mbacke leen ci jublu bokk ak Serigne Touba waajur bu góor ak waajur bu jigéen eh, mu sancoon nag dëkk bu ñuy wax saam ci sow ci west Touba dëkk ba mu sancoon tudd ko saam nag moo waroon ñu di ko waaye borom saam yàlla dafa dogal bi suñ Touba trouvé Touba ne fii la ko sama borom fii la doon seet fii la ko sama borom dël ba ma ko gisee borom saam dafa ñëw sanc ca penk ba sanc ca soow ba sanc ca ndeyjoor sanc ca gànnaar Eh, fuñu wax bustan ak fuñu wax ak fuñu wax eh, ndok ca ak fuñu wax mesere ci chamoy ñent xibla yeb Mamour Jaara dafa dafa sanc pour samé ko pàkkub touba bi ba féete sowu nak moy Sam. motax ñako borom saam waye non la amee yeneen i dëkk yu yu bokk tour yu bare bare magi serigne touba ñu baxo nak chaque année ni niñ ko defee fii fii ci Washington nag yaakaar naa ne ren la ci fukkeelu yoon ak ñaar douze douzième édition fii ci Washington waaye nag bu dee ca Mbàkke ak Touba moom yàgg na ba suñ Fallou toogee ci xilaafa gi 1968 ba léegi mi ngi am ndax Sëñ Fallou moo ci joxe woon ndigal ne Mamour Diarra mooy sama sëriñ mooy sëriñ mooy sëriñ bi ma jàngal te ki ma jàngal nag mooy sama lépp nee na xam-xam bi gën ci xam-xam bi Mamour Diarra ko jàngal mooy xam-xamu tawhid ak xam-xamu tafsirul quran daal ne nag dama koy tabaxal jumaa jox ko ko àllarba ndax gisuma lu ko gënal e, néegub yàlla daal di tabax jumaa ca Mbàkke def ko àllarba moom suñu fàllu daal di joxe ndigal nag ne nañ koy wutal bis nag di ko ci ñaanal moo waral bis bii nag muy fukki fan ak juróom ci weeru sawaal ñu def ko nag fan yi eh, altine ji weesu ca Mbàkke ak Touba ak New York ak yeneen dëkk yi waaye man maa amoon ndigal ci toxal ko ba ci weekend bi tey ma def ko waaye fii nag ci Washington bi ñu fi tàmbalee am ndigal ci taxawal ko fi ak léegi mat na fukki ak ñaar waaye daal 1968 ba léegi mi ngi am ci ndigalal Sëñ Fallou kay xalifa bi Mamour Diarra wéyal ndigal loola di ko doxal di ko jiite su fi toogee xalifa Mamour Diarra di wéyal loola ba ren jii ki nga xam ne mooy sëñ Abdoulaye Mbacke yàllaay boobu nga xam ne mooy xalifa Mamour Diarra dafa dellu ci suñu Sidi Muxtaar yeesluwaat ndigal loola ba suñu Sidi Muxtaar joxaat ko ndigal mu dikk yeesalaat ko defaat ko rek ñu jot ndigal loola ba mu agsi Washington DC loolu daal mooy solo si bis bi